اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلسوات درس تائية السلوك إلى ملك الملوك في نظم قطب الوجود العارف بالله سيد أحمد عرب الشرنوبي رحمه الله مهتر بي جانجل والو برنسيب تصوف لبلو أم والو تصوف tasawuf ñu ngi tolloon nag ci taalibe nan la بنيو جيخوان وانتي وفرض عليه أن يكون مؤدبا لدى شيخه في كل وقت وساعة وفرض فرتل عليه جتالب بأن يكون مؤدبا منكك أمتج لدى شيخه تسرنم في كل وقت تبب وقت وساعة بيب جمان نعم بمو فك مغن دندق موم مغن نكك موم سرين بطوغك موم ولا مو نك فو خامن يب نعم رسبة كي ديگان تيم أكسرين بي وتحمل ليبدي له الإشكال في كل صورة ويلقي له من سر سر الحقيقة لام تجن جلولو ليبدي له غير سرين بمن كو فينال الإشكال لين خاني موي للنت في كل صورة تبيب إيماج بيب ميلو تبيب إيماج ويلقي له مدكو جنجل من سر تي سكري يغا خمنتيني سر الحقيقه مونغي جوغي تي سكري حقيقه حقيقه موي سكري رياليتي moo tax boo ñëwee ci charxa bi mu ne ay lim ci namm mooy li yudhira al murida lahu ay li cheikhihi al ishkaal ay ishkaalu ma warada alayhi min xafiyi al umuuri fi kulli suratin waradat alayhi mooy taalibe bi sëriñ bi bu bëggee jëriñ sëriñ bi day am teggin ci moom ak teggin bi nga xam ne moom moo yella ci taalibe ak sëriñam bu ko defee sëriñ bi mën koo feeñalal li nga xam ne mooy lépp lu lant ci moom ci mbir yi nga xam ne mbir mooy mbir yu nëbb yi moo tax moo tax war ko nëbb dara boo gisee lu ko jaaxal war na ko wax bu tëddee gént dara war na ko nettali maanaam sëriñ bi mën na koo gidee ci géntug ko lan la ndax géntug wilaaya la wala géntug leer la wala géntug cheytaane la wala nàngam ak nàngam bu dee tëdd di am lu tiit hakada bu gisee lu ko jaaxal ci wàllu jaamu yàlla manquement ay manquement yoo xam ne mu ngi koy dikkate daaw ko dal waxtaan ci ak mom waaw gis nga bu ko defé loolu lu ko ci lu ci diso ak mom rek mën nako ko indi solution solution bi nak moy lu yëb dii lahu googa yi nga xamni daf ko koy feñalal loolu nak tok teggin bi am seen digënté motax tax mu ne wa yulqi ay shaykh lahu ay lil murid min sirr ay sirr haqiq haqiqati hatta yazul al ishkal moy mu man ko feñalal lépp lo xam moy secret haqiqati moy secret réalité ci walu yàlla ci wàllu nu ñuy toog ak yàlla nu ñuy jege yàlla ci yoonu yàlla daal réalité yi mën ko ci leeralal waaw bu ko defee moo tax boo demee ibnu al arabi mu ne assirru yutlaqu ala maanin ibnu arabi alxaatami mu ne sirru secret nee na dañ koy jox ay baat yu bëree bëri ci misaal ndax am na ñuy wax diñ wax sirrul ilmi bu ko defee sirrul ilmi day taxawee bi isaay xaqiqatil ilmi bihi mooy day taxawee ñi xamante ni mooy day dévoiler yi nga xam ne mooy réalité xam-xam loolu tuddee sirrul ilmi mooy loo xam ne day ñëw muuri li nga xam ne mooy réalité xam-xam maanaam réalité xam-xam mooy sirrul ilmi réalité xaqiqati buñ tuddee sirrul ilmi am na lu ñuy wax sirrul xaal mu nga xam ne day taxawee bi isaay maarifati muradillah mooy doon loo xam ne dina mën a euh, feeñal génn li nga xam ne mooy li nammeelu yàlla ci jaam bi xool ne kii de safara la jëm wala kii diw mi aljanna la jëm loola yàlla namm ci moom wala diw dina dee jur sàngam loolu am na nit yàlla ñoo xam dañ koy xam loolu la wax sirrul xaal waaw wala diw bu xëyee suba gone gi juddu liir bi dana doon xutbu zaman wala dana doon président de la république loolu sirrul xaal lay doon ba tey day dugg ci sek waaw ci sirru ba tey waaw sirrul ilmi nag mooy xam yi nga xam ne day aju ci wàllu xam-xam ñi nga xam ne dañ ko daal daal lënt ci nit ñi fa ko ko yàlla di xamal dañu tuddee sirrul ilmi ci gàttal sirrul xaal nag mooy li ma expliqué léegi li xam ne mooy sirrul xaqiqa nga xam ne moom day taxawee ci bi isaai maarifati ma taqaau bihi l isharat li nga xam ne mooy jëm ci wàllu junj yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy ishaara ci jaam yi di ko ishaara ci alquran di ko ishaara ci façon yi nga xamante ni mooy yi xew ci jamono loolu ñi koy xam loolu la ñuy tuddee sirrul آه، سر الحقيقة كون لول موي ديغانت سر العلم أكسر الحال أكسر الحقيقة ليك يومنا يوم ويصحبه كالميت آه، بتخفيف الياء كالميت في حال غسله يقلبه للغسل في كل وجهة تالو بي ويصحبه ني عندك سرين بي ني عندك مم كالميت كوم كو دي في حال غسله بنك ci jamono juñ koy sange néew bu ñu teg nga xamante ni lépp dañ ko koy defar yaa koy sottil ndox yaa koy bomb yaa koy yeew yaay takk yaay yëkkati yëpp nee na néew taalibe bi noonu la war a mel ci sanam sëriñam ko defee bi di ko wëlbati gis nga comme ni ñuy wëlbatee néew boobu li lil xusli ngir sang xam nga néew bi boo koy sang di nga ko wëlbatee ak yaa xakada noonu tamit taalibe bi noonu la war a mel sëriñ bi di ko jël di ko manipule xam xel xel xel ma fa mu toll xam la ko gaar ci bakkan daa bari nelaw wala dafa bari wax xam nga yooyu yëpp wax ju bari gàllankoor la ci yàlla daa bëri wax wala dafa bari nelaw wala daa bari lu muy lekk wala daa bëri lu muy mer waaw wala dafa bari lu muy jaxasoog nit ñi du amul benn jamono bu muy moom boppam kooku ci gàllankoor yi la bokk eh, lii moom mooy li am ki bëgg jege yàlla ñaar yi képp ku képp ku bëgg yàlla ak képp ku bëgg am dara ci jamono il faut mu weet maanaam nit bu dul weet nit koo xam ne foo ko fekk mu ngi ci biir nit ñi di waxtaan kooku du avancé mukk ci àdduna kooku du avancé ci wàllu yàlla bu dee kuy wut yàlla la bu kuy wut àdduna it du avancé ki bëgg avancé ci wàllu àdduna wala ci wàllu yàlla fook mu am période boo xamante ni day nekk moom kase nek bobu moy nek mom kasse moo koy permettre moy mo man di khalat bu ci walu yàlla la moy khalat ci yàlla wala moy zikru wala moy jangal alquran wala moy julli wala moy khalat mbiru asman wala moy khalat ci li nga xamanteni moy fi khala akhlaqillah manam ci mindeefu yàlla yi lolu ay point la yo xam da ko jalle bu dee ci walu aduna la it moy tok di khalat di khalat ay projet bëgg naa def nangam bëgg naa def toog di xalaat di ko rêve ci xelam nan lay def ba def ko hakada kii toog ki nga xam ni du am loolu kooku du ko man loolu moo tax tubaab yi raw ñu ci côté bu bari parce que dafa am waxtu wu ñuy liggéey am waxtu woo xamante ni dañ koy seetaan télé am waxtu woo xam ni dañuy nekk ci seen bopp am wax am waxtu xam waxtu nelaw la am waxtu waxtu sport la am waxtu waxtu gëstu la bu amee congé nga dem benn palace boo xam da nga fay nekk nekk foofu di def ay recherche di wala di jël ay livres yoo xam da nga koy liir noonu la doomu aadama wala toppee dundam bis bi daf ko war di xaaj war di xaaj lu ci ne heure bu ci ne am na lum ci war a def imprévu nag du ñàkk ci doomu ci dundu doomu mais bu amee mu xam ne loolu lu normal la waaye mu bañ a jël jëmmam ji rek comme ça di ko euh, maye ko noonu rek foo ko fekk rek mu ngi ci yi di waxtaan di reetaan ak ya caaju kooku du mën a avancer. motax mané yuqallibuhu gis nga lil xusti sayn bi diko walbati kom comme ku ñuy sang mi kulli wajhatin ci bépp ci bépp ma mi kulli wajhatin ci côté bu nek diko walbati wëlbati droite di ko gauche motax mané ay wa yalzamul murid an an an yusallima qiyadahu li cheikhihi wala yajcalu li nafsihi ma maahu ixtiyaaran abadan bal yakunu bayna yadayhi kalmayti bayna yadayhi alxaasil mu ne taalibe bi dafa war mu nekk mu jël li nga xamante ni mooy volant bi waaw li koy conduire mu jox ko sëriñ bi sëriñ bi di ko wommat te tamu bañ a demee ak tànneefam moom boo xam li mu bëgg sëriñ bi ci boppam xam ne dina xam moom kii lan la bëgg sëriñ bu mat sëriñ lay wax de sëriñ bu mat sëriñ dëgg boo duggee bay boo yegsee ci moom mu xam yow li la tax a jug lan la fan nga jugee nan nga def ba yegsi fii ak lan mooy say gàllankoor ak lan mooy say feebar yooyu yëpp daf koy xam bu ko defee yow boo ñëwee Euh, dina xam ban yoon lay jaar ak yow pour mën laa dimbali moo tax mu ne wali wali ay jihatin arada moo tax mu di ko jëfandikoo nag ci euh, ki nga xam ni côté boo xam ni mooy côté bi nga xam moom la ko taamoo rek léegi nag mu ñëw ci baatu ñu ngi jëfandikoo woon wa yasxabuhu kal mayti mayt mu ne mayt bi taxfifil yaa huwa alladi mata bil fi'li moo koo xam ne daa dee mooy ko dee comme ni nit dee di deewee wa amma قابل الموت فبالتشديد آه، قال تعالى إنك ميت إنك ميت سورة الزمر كم نكبر رب سبحانه وتعالى وخير مام ليلة رلتي آه، نار بيتي مجمع بمنا أيا سائلي تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت إن كنت تعقل فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل aya saa'ili man yow may laaj tafsira maytin ci ma firi baatu mayti wa mayitin ak baatu mayit mayt mooy sukun yaagi xaf taxfif mayit ak nga def ko shidda man yow mi may laaj loolu nee na fa duunaka jëlal qad qad fassartu in kunta taqilu dinaa firi naa ko bu fekkee ne am nga xel nga mën a dégg kaana daa ruuxin képp koo xamante ni boroom ruux la fa dalika mayitun kooku mooy baatu mayit kooku la yàlla di waxal mooy innaka mayitun kooku dafa fekk sayyidna Muhammad mo ngi dund sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu jëfandikoo baatu mayitun boobu wamal maytu nag baatu maytu ñu ko waxee nag nee na illaa du ludul du kenn man ilal qabri yoxmal ludul koo koo xam ni dañ koo du jëmale ci bàmmeel kooku la ñuy wax al maytu mooy néew bu dee gis nga mu yeggale mu ne faman صاحب شيخه بدون اختيار كشفت له الحجب والأستار كيف كأنك سرينيام تيلو دول تانيف دي سيات لي مبغ موم بايكو بابام يعني كوكو زنكو أبل لغا خاني موي بيب ريدو بو نبوان موم مخام لفنه بوليميكي باتاي موي وحني تي موغي تي ديگان دي تالبك سرين تي كمبرتما يوم ورنك موم متكين مع الذل والتهذيب والخوف والرجاء وعجز وتسليم وتعظيم حرمتي مني مع الظل مو أنك ترخلو والتهذيب أك سلل بكنم والخوف أك رغليال والرجاء أك دياكار وعجز أك تلي تباكم أك تلي وتسليم أك جبل لب يالا وتعظيم حرمة أك مقال حني موي حرمك نسكا من أي مع مع كون المريد ملازما للذل ما يطالب بنا التقوى ترخلو جابني خمني دو دار تك ودر أم ودر خم ودر وهو إظهار المسكنة لأن لول ما يفني أك أك أك نيك يجني مم كنيك له بقدر في لينا من الله بذلك العز الأبدي تجير ممنا أم تي على اللي خني موي تدين جوج خمي وصح دك له بدر أبو يزيد من قيل لي خزائننا مملوءة فإن أردتنا فعليك بالذل والافتقار أيوة أبو يزيد البصامي رضي الله عنه waaye dañ ko ne ñun kat suñu magasin yi fees na boo ñu bëggee kat ah ñu ngi lay dénk nga saxoo toroxlu ak aajowoo yëg ni ku amoo dara gis nga kon moom yoon wow la toppoon yëg ni moom ku torox la tekkiwu dara la yëg ni amul dara it noonu la yoon woowu la la toppe woon tarbiyaam boo demee ci kaylaani bu ne kaylaani yaani cheikh abdul qadir jaylaani ñeneen jaylaani ñi naan kaylaani mu ne ne ataytu jamia abwaabil xaq فوجدت عليها عليها عليها الازدحام حتى أتيت باب باب الذلة والافتقار فوجدته خاليا فدخلت منه آه، من دما من متكتن فالتفت فإذا أنا قد سبقت القوم وتركت الناس على الأبواب هو إنه أيوة، شيء من أبو يزيد البصامي من دما نيوتي بولم بنتي ما فيك بنتي ني رجل جو أنا بنتي جمشي على ما فيك مو في الزرع بوخنتي kenn ku ci ne di coup d'épaule sa morom pour pour ndekante bunti pour dug neena ma daldi di jël daal ñew tamu euh, buntu toroxlu moy ma jaar ci fenêtre bi rek ma taamu buntu toroxlu ak ak aajowoo ñak manam ñak ku ñak ku tek ku amul dara bi ba ñewé fofu buntu ba ma fekk ma ngi wéet kenn nek fa waaye buntu yeb occupé nañ buntu toroxlu nak ak ku ñak mom da ñew daa da wéet mom kenn neew nee fa daxaltu min fa la jaar fa la jaar dug taxawuma sax yang lebih mudah juga duggee nag ci la gëstoo gis gaa yi nekk sama ginnaaw di dia raj raj loo di mbëkkante ba tey kon toroxlu ak mokk lu lu ci nit amewul rek du ko ci ñàkkee incha allah ba tey mu ne wa yalzamu war an yakuna al muridu mulaziman li tahdibi mu saxu ak al bakanam ay ay tanqih عيوب nafsi حتى tasaada بذلك الخطاب alxitaab bu ko defee ba بولا مي خام اي بكنم بو غافا لولو مونا تخي با يغ سي خطاب بي يالا دون وخنان يا ايتها النفس المطمئنه يي يو بكن بو تاي بي ارجعي الى ربك دل سي سا بروم راضيه مرضيه غدون كوني غرم كوني كوني كوني غرم كوني كوني كوني كوني كوني جوخترانغا سي بروم سبحانه وتعالى فدخلي في عبادي تنغ دوغ سما جامي ودخلي جنته دوغ الجنه بودي نك سي والو سلوك والو صوب سي يونو أيتها النص المطمئن بني إرجعي مويانج دوكي حضرة الإلهية وغلبي فادخلي في عبادي إنك دال دينيو دال دي توغن نيغا خمان تنينيو وليا غوثي ودخلي جنة أقطابي ودخلي جنة إنك جنوك ينون تبي صلى الله عليه وسلم شي تأويلا جي سورة الفجر بني ويتي بات ويلزم أن يكون ملازما ويلزم من أن يكون ملازما للخوف إن دون كتقوك رجل والرجاء دياكار تالو نون لا وردف كما قال سيدي علي خواص سيد علي خواص رضي عنه دفا واخ اذا كنت مؤمنا وسمعت انه تعالى يمدح المؤمنين فلا تبادر الى كونك مؤمنا وتامل قبل ذلك من بودي جوليت nga deg yalla di tag julliti neena bul gaaw bul yaqamti de gaaw japp da nga bok ci julliti ba ngay ba ngay ba ngay njortu ne yow ca ca nga من آه، آه، قبل ذلك هل أنت على ما وصف الله به المؤمنين من الصفات التي مدحهم عليها أم لا لقيوا دغور خول وتأمل قبل ذلك دغي تشمبر دخول ندخ يو لي يالا ملال جوليتي يوي ندخ يو موغي سي يا ولا ديت يالا تاغي جوليت خولال با خام لي يالا ملال جوليتي يا ولا ثم ان كنت على ما وصف فكان لي مال ملال فهل تموت ندخ على ذلك أم لا يراري خلال ندخ دي نديك لول ولا فإن علمت أنك تموت على ذلك فقد أمنت مكر الله بودي دوور نالا ني ديغا ديتي لول يو امغو كونفيانس ديغا ديتي لي يالا ميلال جوليت ا بوبا يو داغي دوغتي ليغا خامتيني موي بابو ام ني مكر الله موي وولو فخيم يالا با داغي دالدي سانكو نك ndax yu yàlla moo ñu wax ne falaa yamanu makrallah illa al qawmu alxaasiroon kenn du wóolu pexem yàlla lu dul nit ñi perte nañ ci yàlla musal kon daal boo dégg yàlla tagg julliti o jàppal ne yow bokkulaa ca ñamuy tagg moo tax léeg-léeg nga dégg jàngalekatu alquran yi nga dégg bu dee lekk ceeb ba biiram fees nag naan ndox ba màndi toog ne waaw euh, indi indi daal di teg nag nuñ koy waxatee sax ahlul qurani hum ahlullahi wa xaasatu beneen beneen aaya beneen beneen xadis ba euh, bim naan ñiy jàngale alquran moo ñi gën ci nit ci moom boole na ci boppam toog tokkat xoolul ba xam melo yi critères yi ñuy tànnee jàngalekatu alquran ma nga ca wala déet bu nekkee ca moom mu am njort bu ñaaw ci boppam jullit dafa war a am njort bu ñaaw bu ci boppam warul am njort bu rafet ci boppam ndax loolu ci sànq di la ko yëri ndax da koy jëme ci am amnu makrillah maanaam wóorul pexem yàlla lu sew la nag moo tax yàlla moo ne buñ ko wëlbee xam yàlla du kenn lu ñi sànku ñi léegi nag wa in alimta annaka tamuut ala ala gayri dalik faqad faqad min rahmatillah fekkee ne tamit da nga naago ne yow doo dee ci loola doo dee ci melokaanu jullit boobaa da ngay naago ci yoonu li nga xamante ni mooy yërmande yàlla te ku naago ci yërmande yàlla kooku du kenn ku dul yéefar ndax alquran moo ne laa tay as min rahmatillah illa alqawmu alkafirun ci suratu yusuf لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولمني بقى جانغان موجيل لنك ديجنتي الرجل اك دياكار وعليك نك امن بوخا من تاني مور أبو دوله كي بلانس لك دانان فكون بين الرجاء والخوف فإنه الصراط المستقيم نكال تي ديغنتي دياكار موي يون وجوبي لك نغان غير أنه ينبغي تقديم جانب الخوف في حال في حال الصحة لك نك لورنك فيك يعني وير أنك وير اك léegi boobaa euh, période boobu da ngay jiital wàllu ragal ngay jiital wallu ragal ragal bi di tiit nga war a jiital fekk yaa ngi ànd ak kattan am wér am activité sawar deret ji euh, daw normal ngay lekk normal di naan normal di entraîner di hakada del tiit lu bari nag waaye nag wajaani bi raja ak wàllu yaakaar gi fi xaalil marat jamono boo feebaree nag na nga jiital nag wàllu yaakaar gi nag mooy yaakaar daje ak yërmande yàlla gis nga moo tax waykat bi noona wa gallib al xawfa ala rajai wa sir li mawlaaka bila tanaa'i gis nga ko léegi moo tax mu ne na nga jiital li nga xamante ni mooy na nga na nga dominer li nga xam ne mooy ragal ci yaakaar na na ragal bi ne dominer yaakaar bi te nga dox jëm sa jëm ci sa borom ci lu dul tayyi moo tax ne wa dalika li anna galabat al xawf li nga xam ne mooy domination bi ci wàllu ragal fi xaali sixati ci jamono ji nga wér nee na loolu taxriqu naara shahwa day rey li nga xamante ni mooy bànneexu mooy sawaray bànneex bànneex yi nga xam ne moo lay gàllankoor ci sa wàllu yàlla ci bakken bi nee na boo dee ragal yàlla lu bari boo dee ragal di tiit loolu day rey bànneex yooyu te it wa tuujibul iqbaala te day ci day waral ci nit ki mu dëgmal ala al amali alladi yuqarribul abda ila ila rabb ila allahi azza wa jalla day dëgmal jaam bi day tax mu xiiru ngir def jëf yoo xam ni da koy jegele yàlla ragal bi mooy waral lool boo déggee dee nga ragal nga tiir tey saan sa xel daal di xaw a kii xalaat boo deewee nañ lay préparer nañ lay takkee moo tax souvent nga seetaan yenn vidéo yi euh, daanaka bala yàlla bala yàlla doonee borom xol bu gaaw a jooy da ngay jooy ci place boo xam ne kenn dafa ne ndax diit ndax ragal gis nga léeg-léeg mu wa galabu raj وغلبة الرجاء عند الموت توجب المحبة التي ينشأ ينشأ عنها الشوق إلى واسع الجود والكرم لغا خمنتيني موي دوميناسيون والو ياكار نك سي بوي جامي باي جيغي دي مانام نيك سي فيبر يوي لولو نك داي يوبي داي وارال سي جامبي لي خاني موي موي نمو يال نمو ين صلى الله عليه وسلم نمو نمو صحابي نمو صالحين نمو قطب أقطابي نمو غوثي نمو نيت يال عارفين بالله باتا بفر نمو لينغا خامنتيني موي داجيك ياكار لينغا خاني موي يرماندك يالا بو ياتوبا واسع الجود والكرم ديكو ياكار موتاخ بو ديمي حديث يونتي موني لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه كيان دو دي سي يين دودول دا فو رافيت نجورتو سي بروم سبحانه وتعالى لكن من وأما ما ورد من أنه صلى صلى الله عليه وسلم دخل على شاب شاب وهو يجد وهو يجود بنفسه فقال كيف تجدك فقال قال أرجو أرجو الله وأخاف ذنوبي قال صلى الله عليه وسلم الرجاء والخوف لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه من مما يخافه yenn sax dafa dugg benn benn xale fekk muy waaj dog nekk ci feebar sukuraat mu ne ko euh, mu ne ko bi mu duggee mu daal di koy laaj ne ko looy yëg yém ko laaje ne ko looy yëg sallallahu alayhi wa mu ne ko man kat ngi yaakaar yërmande gi yàlla ak ragal samay bàkkaar yéen salaa salaam ne ko yaakaar ak ragal du daje ci benn xol ci jam ci monde bi ñu nekk lu dul ne yàlla dina ko jox la muy yaakaar ba noppi euh, maanaam garanti defal ko garanti ci lépp loo xamante ni daf koy ragal kon gis nga loolu lu am solo baynal xawf war raja nekk diggante rajar ragal ak yaakaar ci jullit bi bu wéree bu ànd ak nan nay tiit lu bari bu ànd feebar na am yaakaar ci borom na di nga daje ak yërmandeem incha allah yàlla buur bu baax la te mën na koo jéggal mën na koo yërëm te du dara ci moom ndax mooy waasiul judi wal karam bu ko defee foofu la ñuy taxaw incha allah qul qawli hada wa astaghfirullah al azim li wa lakum wassalaamu aleykum